lu ma def lu lu ma def fii war na ma ndax je suis de ce terroir Mais lancer un appel solennel à tous les ressortissants et ressortissantes de Bambey leen wax ni leen Bambey ñoo ko bokk te ku nekk fa nga nekk muy bitim réew muy fii ci Sénégal euh, bu la say moyen maye ak seeni say relation nga xëcc indi da ngaa war a xëcc indi ndax lu kenn mën ñett ko ko dàq di wax ni don yi tey ji nag maire yi am ci euh, centre de santé bu lew na tamit ci parce que y a des lits d'hôpitaux il y a des habits pour les daara il euh, y a aussi des déambuleurs pour les hôpitaux donc euh, daara Serigne Diouf amna ci mi ngi nii donc centre de santé Léona Nord amna ci li ci vraiment mère moko mom donc je suis là pour la population population de la fi donc luñ ma jox dama dama ko wara jox merci partenaire dama len di remercier ndax bi pas euh, Monsieur Dirk Fismeye, président et représentant juridique et légal de la Fondation Éducation for All dugal na docteur Burkhard aussi Morning Plaf bu Aplabek dugal na ci le cadre de di gërëm di leen sant di ki la collaboration avec Abba et ak président national de la Fondation au niveau du Sénégal Nous wax ni doy nag du plus de 15 départements bénéficié wul nañ ci mo taxo ñu dem Kaolack jëli ko ku nekk am nga ci donc c'est à travers le Sénégal di ñaan suñu borom may ñu wër ah suñu maire bi yàgg fi lool li mu bëgg ci dëkk bi suñu borom defal ko ko merci. nan lal yi nag donc merci di gërëm aussi Daara Serigne Diouf parce que ñi ngi fi présent euh, depuis lors ñi ngi fi di gërëm aussi wa centre de santé Léona Nord PAP poste de santé euh, Léona Nord dont le président est là Pape Malick Dieng ak Khady Ngingue maa ngi leen di gërëm di leen sant yàgg nañ ma sollicité moo tax tey may leen dinaa leen jox tuuti ci yëfu maire li ci dess nak ma bayiko ak maire maire xamna naa dig mako nga dig mako djegal di gërem ko jéggal di gërëm di di collaboration bi merci beaucoup. waaw jërëjëf Modou bon comme niñ nga ko waxee euh, li nga wax yépp amna solo mais liñ ci ëppal solo moy mo guleet bi ça veut dire que nek lo xamante ni tay la commencé donc euh, Awa dafa nek suñu sœur nek euh, actrice de développement euh, ci liggéey bob aussi mu ci and ak ay partenaires allemands yo xamante ne ni dañ koy jàppale waxuma sax ci Bambey waxuma ci département bi mais ci Sénégal yépp ay atangi a ñu ci intervenir surtout dans le domaine de la santé et de l'action sociale di dimbale néew bi doole donc kon lii du tey rek la ko def parce que avant li am na ay actes yu bëri yoo xam ni posé na ko ba pare toujours bu koy posé daf ciy ànd ak liñ naan légalité légalité bi mooy amul dara loo xamante ne nii moom dina ko def ak ay partenaire am te jaarul ci ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dénkagul dëkk bi kon loolu aussi il ñu fësal ko pour ñu xam ne lépp loo xamante ni mu ngi koy def intérêt population yi la ba pare daf koy teg ci yoon parce que dafa koy jaarale fi mu ko war a jaarale kon dañ koy sant di ko gërëm et à travers elle aussi ñuy sant partenaire au développement yi koy jàppale donc tey jii lim ñu indil euh, partenaire am yi ko xam ne ñoom ñoo ko jàppale muy euh, monsieur Dirk Fismer bi nga xamante ne ni moom mooy président euh, représentant juridique et légal de la fondation ah nañ ci aussi Der Burkhar ren nañ ci aussi Morning Platch ñi nga xamanteni wax deug yalla ay partenaires yi ñu xam lañ yag nañ and ak mom di jappalé askan donc kon dal vraiment aw ñu ngi koy sante encore une fois de plus au nom des populations diko gëreum diko ñaanal yalla yalla may ko wër may ko katan ba li nga xamanteni mom la and ak ay partenaires yi te jublu ci dara lu dul jappalé population yi yalla may ko ci ndam Voilà. Voilà. Donc, merci, Moudou. Je pense que, comme tu l'as dit tantôt, ce n'est pas la première fois que notre, AOC, e, notre sœur AOCN e nous convie à ce genre de rencontres. Donc, à travers son partenariat avec les Allemands, elle a eu à poser plusieurs actions dans le cadre du développement, aussi bien du département de bambay que de tout le pays parce que ces partenaires, pendant des années, ont eu à soutenir les populations de manière générale dans le domaine de la santé et de l'action sociale, et même dans d'autres domaines. Donc c'est le lieu donc de les remercier à travers sa personne, de magnifier ce partenariat gagnant-gagnant qui a toujours caractérisé cette relation entre AO et les Allemands. Donc, euh, au nom des populations, donc, euh, nous remercions notre sœur AO qui est une actrice de développement, qui contribue au développement de sa localité et qui est aussi une légaliste. Elle est une légaliste en ce sens qu'à chaque fois qu'elle pose ses actes, elle passe par la commune que nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de diriger. Et je pense que c'est un acte de légalité, raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de le remercier, de prier pour que ce qu'elle veut au niveau du Sénégal, même je dirais, parce que la fondation intervient à travers tout le Sénégal, qu'elle puisse avoir euh, la force, la santé de pérenniser ces actes en faveur des populations. Euh, c'est le lieu aussi de remercier ses partenaires que j'ai tantôt nommés. Il s'agit de M. Dirk Fissmer, qui est le représentant juridique légal de la Fondation Education for All. Il s'agit de Dr Burkhar, il s'agit de Moering Plash, qui sont des partenaires qui ont contribué à ce don-là que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui.